ku seet ca mbir ya tax nga roy ko juume mayam mbindeef dajul na doon maas bu kenn waay déglu leen ma maa ngi ñëw guddi gi des na ku seet sa mbir ya tax nga rey ko juumee mayam bi ndeem dajul ña doon maasam gaama mu ne seydee di mbar mu doddaay kiraama sigal gaay ko fecca waaye mu ne ku rek tax nga jóg ba fël lamba ma doomu jalul nga naa sey te wàcc moo dim kelang lambam yu réy laytu naa gandem ñoloo say xuloo mu ni bàyyi laay na ci boppam doom ji la doon wax noonu bu kenn way moo dim këlang làmbam yu rëy laytu naa gaynde ñaloore say xuloo ya santam mu ne ku rekk tax nga jóg ba fel làmbam ma doomu jalul nga naa ko say de wàccam ku seet ca biir ya tax nga roy ko juume mayag mbindeef dajul ña doon maasam kon yéen kambareen am ngeen bidaayam diine yéen ñu naa sigil isaa damaa waxoon ne dañoo jóge màkk ñoo Medina ku ma si jóge màkk Medina nga jëm jamono yi nag mi dina lu kon yéen kambareen am ngeen bidaayam diine yéen ñu naan yéen borom birëb bi nag mu ne ay doxandeem ak ki juddoom la yemale bu daa waxee حدود مأواه waaji fu nuy jëlee ci cam lu mel ni Isa du ñax mbindeef du wax lu dañ du siise waaye xabrom ba doy na leenam ñaanu kaaye lu ngeen fa ñaan di ngeen ko am bo ko deme ci bëgg say aaja fajo waxal ca so kon yeen kambaleen am ngeen bi diine ndax li baax ngeen dafa tënk lépp dañu fële walam yarjoo ilal jinaani laaye xidaamoo faxlamara walaay moo tax ku dema dem ba yàgg nga ni limaamu dee li wax rëy na walaay xamoo yàlla mosul yàlla mosul yónni lu rëy ku rëyul te jox ko lu rëy yàlla kuréel ku muy lu reey la koy jox motax bay lay ñëw andi kalimatu la ilaha illa allah ha ha xamoo li mu firi noonu laa ko bëgg ولم يرجو إلى الجنان لا خداما فهل مرو ولم يرجو إلى الجنان لا يجم yaakaar ngeen te bëgg a dugg àjjana yàlla ja xidaamu hoo garda ya day alkaati yee ca bunt ba faxla ma roow laay xam nañu seen ay saa xidaam boobu mu ngi firi foofu alkaati mu ngi firi kuy garde walam yarjoo ilal jinaani laaye xidaamoo faxlamaroo walaay lu tax sëy na Aïcha am loolu mu ne Seydee di mbër mu doon nay kiraama siggal nga gaaya fekk woon limaam walam yarjoo ilal jinaani laaye ku bëgg a duggi àjjana yàlla ya ja xiddaamoo garde yi ci bunta bale yi fax la ma xam ne si waaw si leen ndax yéen bu ngeen wayul seen wayi bopp rek bu ngeen si kar tey dama damaa waxoon ni tey mawludu rasulillahi la dañ ciy tuddee yàlla wax ci ay ay yëfam rek bu nu demee nag ci jàng yi def leneen ma bëgg nag ndax li baax dana arab jël wolof déju ndax gënu yépp jànguñoo ñi mel ni man dañuy béjoo werante sarfa moom bu kenn waay mooy guddi gii nag ngir borom ëtt bii ak borom yoof moom deful benn ixtilaaf ixtilaaf bu am ci nun la waaye dañu mën a dimb mën a tey rek